jox ci nivaquine yeeg garab yi gàncax yi ñoom xasum loodo waaw maa laa xam nga xasum loodo ak ngeer waaw yoo yooyu yëpp yooyu yëpp fi ni bàyyi nañ ko ala moo gën ci ñun ah, ak garabu kii euh, banaana mais may ma ma ñëw rek ci li ñu wax nii c'est très sérieux gis nga li hmm. actuellement hmm. li ñu bëgg a def mooy xoolal président Macky Sall mu ne la vaccin d'accord naa ci waaye il faut que ça soit gratuit mais président Macky Sall mais nañu wax ban vaccin moom moom la ñuy fay mais les vaccins sont gratuits. Ah, xale yi nii ñàkk mos nga fay gis ñàkk bu day fay. ñàkk yi ñàkk yi c'est gratuit. Mm. xamul tax mm. parce que ñàkk te pour xeex luy law la te bu lawee askan wi jeex moo tax àdduna bi yëpp le vaccin est gratuit. léegi donc xamal lay la lu lu lu mu mooy que ne vaccin bi daa am ay galgal xamuñu lu ñu gëm. Mm. mooy sa vaccin la sa vaccin la na Sénégalais yëpp tey. on n'acceptera pas ce vaccin. C'est un enseignant qui parle mais pas un docteur. On n'acceptera pas ce vaccin déglu ma wax la c'est un enseignant qui parle mais pas ma rek non du affaire enseignant waxuma la ca la vaccin ba vaccin bi déjà fajul dara parce que ñun sénégalais yi. Hmm. suñ ñu bàyyi woon ñu fajook artémisia bi. Hmm. la la am Madagascar mooy am Sénégal kon lii ñu am ci dee sax duñ ko am. Hmm. yaa ngi may dégg li ma lay wax. suñ ñu bàyyi woon. ku feebar ñu jox la artémisia bi. bi du rey. wala bu fi rey tuut la fi rey. yaa ngi may dégg. lim ni rey nii naam bariwul yenn bari yi. mais kon mënoon na gën a néew. Hmm. parce que ñun cinquante cinq lañ toll. Hmm. Europe dañ doon am mille cinq cent mille six cent morts par jour. Hmm. par pays. kon xam nga ne loolu mën nañu bu ñu ko comparé xam nga ni néew na quand kon ñun bu ñu toogee trois mois après trois mois. ñu am cinquante cinq décès ça veut dire que. kon ñoom hécatombe bañ doon prédire en Afrique amul. yàlla weddi na yaa may dégg yàlla yàlla weddi na. waaw léegi nag kon lu tax ñu bëgg ñoo imposer vaccin. vaccin bi dafa am beneen objectif bu ci nekk. ils veulent faire un puçage. Ah, loolu plan B lañ bëgg plan non non puce. vaccin bi day am puce. loolu lañ bëgg puce puce lañ bëgg a def ci vaccin maanaam. mais def plus ci vaccin yi bu ko def di contrôler la population mondiale l'objectif majeur c'est le contrôle de la population mondiale donc bu nit ñi yokk parce que nit ñi bu ñu yokkoo c'est une catastrophe Bill Gates mais n'investit que dans ça ouais. Bill Gates xam nga lu muy def xaalisam c'est hmm. la première fortune mondiale hmm. en Afrique Bill Gates ci lii rek lay intervenir hmm. la santé de la reproduction. la césarienne gratuite. pourquoi ñu def césarienne gratuite. parce que sa soxna su ñëwee ëmb. bu yegg see hôpital dañ naan ko defal césarienne. xamul tax ñetti yoon dootul mënati. ñaar dootul mënati ñaar ñaar. boo juree ñaari doom par césarienne. ah déet bul wax ñaar. boo nee ñaar dama lay wax rek. ah ñaar la wax de. <laughs> xoolal boo demee ñaari césarienne. c'est fini. boo ko de non du du c'est fini dañuy commandé la tiital. naa la mënatoo am man la naan la wóorul. risque la risque la. xam nga lu ñu ca bëgg. kooku bu ñu ko bàyyi woon mu accoucher par la voie normal mën naa am ay cinq cas am six wala sept loolu lañ bëgg a freiner moo tax Bill Gates investit son argent dans la gratuité de la césarienne c'est important deusièmement day investir xaalisam sur le planning familial tous les produits yi nga xam si ak système de planning familial yi am mooy bi ñuy dugal ci yaram week brin bi brin beeg comprimé bi comprimé beeg bi def si sexe bi yëpp dañ koy subventionné implant bi yëpp dañ koy subventionné pour que jigéen ñi gratuitement lañ la koy def waaw bu ko defee jigéen ñi dootuñu jur beneen bi mooy il se dans tous les pays. Mm. pour que l' avortement soit autour soit soit légalisé. bu ko defee ku bëgg a avorter bu la neexee boo demee ba xam ne avorter maanaam boo demee ba xam ne da nga. wan lor mën nga yàq am nga droit yàqu ko. dindi ko loolu lañ bëgg pays yi def ko. subxanahu looloot lañ ca jublu. Mm-hmm. mooy wàññi la taux de natalité. c'est-à-dire bu ko defee africain yi wàññeeku ni ñuy jure parce que ñoom dañoo jàpp ni Afrique. ak Chine te Chine léegi réussir nañ léegi avec la politique de maîtrise la natale de de de de la démographie. ñi ngi wax léegi chinois yi bëri léegi benn doom la ñu am. maximum ñaar léegi sax ñi ngi leen di pousse ñu am benn. yaa may dégg mm-hmm. léegi loolu mooy coow li yaa may dégg. léegi ñun Afrique gii lañ lañ mënta maîtriser moo tax Afrique lañ bëgg a contrôler bu ko defee lii buñ ci xeeb li may wax nii. man je ne parle pas de choses yoo xam ne c'est des choses très donc mënuñ ñu imposer un vaccin ñun du ñu vacciné wu on va pas kenn du ñu imposer benn vaccin. ma ne du ma piqûre. waaw léegi nag bu ñu fi andee vaccin bi coow dina am maintenant nag xam nga luy problème bi. ils peuvent aller dans les villages dans les périphéries parce que Sénégal cité nañ ko ci réew yi d'accord ñu expérimenter fa vaccin bi. loolu c'est un le président Macky Sall doit sortir et éclairer les Sénégalais. il faut mu wax ñu ndax moom d'accord na ci wala d'accord. voilà dañ ci bëggoon wax mu nekk gestion wu bi. waaw mais gestion wu Covid bi. Euh,